ganu Equivox dellusiwaat di dalal tey euh, kilifa goo xamante ne ràññee nañ ko ci réew mi euh, jamono ji nag moo jiite euh, maanaam CICES e ku ko wax xel na dem ci foire bi nga xamante ni Sénégal daf ko yàgg di organiser waaye xam ngeen ni Covid bee tax daanaka at yu ñu génn lu ñu mel jëmmuut waaye donte nag Covid baa ngi fi ren dañu ko fas yéene organiser maanaam mu ngi tàmbali juróom-benn fan ci weeru décembre bi ñu dëgmal ba ñaar fukki fan ci weer wi muy nag. Euh, ndaje mu am solo boo xam ne dañuy jokkalante ci wàllu njënd ak njaay sunu réew ak yeneen réew ren nag Pakistan moom lañuy wax mooy invité d'honneur bi tey nag ñu am plaisir dalal wala sax moo ñuy dalal ci makkaanam di Salihou euh, euh, Keita mi nga xam tey mooy ganu Equivox TV kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax di am mbégte di la wax ni gërëm nañ la ci dalal bi ñu dal waaye ñu ngi lay dalal yooyu ci Equivox TV. waaw merci beaucoup Ousmane di. rafetlu encore une fois euh, déplacement bi ngeen def ñëw fekk si ma fii au niveau du centre international euh, du commerce extérieur du Sénégal ak équipe bi nga àndal vraiment di leen remercier et di wax ni c'est une opportunité également pour ñun ñu waxtaanee li nga xam ne ni tey euh, son excellence le président de la république Macky Sall dénk nañu ko pour ñu liggéeyal askanu Sénégal et moom si boppam mu gis si mu gis si boppam donc effectivement wax nga ko heureusement waxoo foire ñun CICES la ñu tudd centre international du commerce extérieur du Sénégal bi nga xam ne ne mission am c'est vraiment l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activité et à travers l'organisation quand même de salons et de foires salon ak foire dañu nekk ay manifestations économiques yu am solo yi nga xam ne ni tey day fexe ba Sénégal euh, ñu promouvoir les échanges commerciaux, renforcer la coopération commerciale, coopération économique, hmm. coopération, au-delà même de la coopération diplomatique, cette coopération économique, ba nga xam ne ñu renforcer ko diggante Sénégal ak bitim réew. Hmm. kon CICES tey euh, boo xoolee rek dafa nekk benn instrument économique bu am solo. Hmm. benn institution d'appui au commerce. ñun nag ñooy fas yéene. Euh, ñëw sur l'organisation euh, vingt neuvième édition bu FIDAK bi nga xam ne ni mooy fexe mooy tax dakaar nekk la capitale des affaires du 6 au 20 waaye nag ren particularité bi hmm. ñaari mbir la mbir bu njëkk bi mooy gulet ñu organiser FIDAK après une pandémie oui mais bu fekkee ni sax ba léegi bo ñu ngi ci ngi ci donc ça veut dire que tey hmm. l'histoire dina retenir que pandémie amoon na ñu ngi ci biir pandémie wala post pandémie ñu ngi ñaan yàlla suñu réew Sénégal ba nga xam ne tey ñu wane gi mu euh, pandémie wan ñu ginnaaw waaye daal euh, deux ans mi ngi nii organiser wuñu FIDAK te FIDAK mooy l'activité phare donc suñuy manifestation mm. moo tax boo xoolee bu ñu duggee ci biir mu waxtaan bi bien dinaa dinaa la won ni vraiment ñun euh, weesu nañu tey foire weesu nañu foire euh, weesu nañu foire bi nga xam ne mooy. dajale moom la daan dajale nañ yeeg yooyu. c'est important mais mais d' abord fi ma bëggoon ci taxaw mooy benn bi mooy euh, euh, waxoon naa ko benn bi mooy li ma jot a wax léegi mooy. pandémie bi. mais également. Euh, deux ans mi ngi nii on n'a pas organiser d'activité. justement foofu laa bëggoon taxaw deux ans organiser wuñ ko ci diggante bi ñu nommé la. Mmh. mu war a nekk sa première n'est-ce pas FIDAK boo xam te ne yaa ngi koy organiser. Mm-hmm. lan lay def ci yow bi nga ko xamee ak ban état d'âme état d'esprit nga nekk jamono. ci ci oui état mooy on est serein. on est serein parce que li ñu war a def incha allah dinañ ko def li ñu war a def tamit def nañ ko l'essentiel mooy euh, bu ñu yegsee à la tête maintenant de cette structure dañu def lu ñuy wax l'état des lieux. état des lieux bi nga xam ne ni. moo ñuy permettre ñu mesurer véritablement le poids de la mission que le son excellence nous a confiée CICES e nag parc d'exposition la et de congrès mm. looloo tax ñun ñu jàpp ni au-delà de la FIDAK dañu war a déglu askanu Sénégal ah li ñuy wax foire bu ñu war a organiser du 6 au 20 mm. bu fekkee dañuy déglu askanu Sénégal mm. ñu si bari dañuy wax ni Sandaga bis ah oui ñun ñu war a néew ñëw corriger perception boobu. Hmm. dañ ko war a corriger mais surtout ñu dem vers des innovations de taille. mais justement moo ñu permettre sax ñu dugg ci lan nga jàpp ni moo koy nar a différencier yañ daan organiser ba soppi xar kanam bi ngay wax nii. li ñu yàgg koy njëkk a différencier mooy approche inclusive et participative. la FIDAC ça dépasse la CICES parce que FIDAC c'est quatre cent mille visiteurs. Hmm. ñoo fiy ñëw. FIDAK waxtu bu may wax ak yow de façon officielle on a dix pays yoo xam ne de façon officielle dinañ def seen délégation dinañu ñëw vingt cinq pays yoo xam ne tey nationalité dinañu ñëw participer loolu lu ko waral mooy euh, wax naa ni ba ma yegsee pandémie la ñu nekk te réew yu bëri tey dañu frappé par ce qu'on le problème de fret maritime bateau yi doon ñëw ñëwatuñu bitim réew au niveau international Europe Amérique pour ñu nga am conteneur buy ñëw problème la ñun ñu jàpp tey de façon intelligente ba ñu yegsee def état des lieux bi dañu dem seeti les représentations diplomatiques mooy ambassade yi fi nekk mais ñu def focus sur les pays africains pour ñu gën a promouvoir tey on parle de ZLECAf ñu fexe ba promouvoir échanges commerciaux entre d'abord les pays africains. et que ko jiituwoon sax on parle de teg. voilà les pays africains. te loolu waxtaan bu ñu waxtaan ak ambassades yi. boo xoolee ba ñu doon def le lancement de la FIDAK. Hmm. mu nekk gulet ci innovation yi. xaaruñu un mois. mais pendant avant cinq mois avant lancé nañu euh, la FIDAK pour que partenaires yi euh, euh, ambassades yi ñëpp képp kuy partenaire nga boole ko ci sa plan d'action. xam nga ne FIDAK dina ñëw pour boole les opérateurs économiques. mais ban wàll justement ci opérateurs économiques yi surtout ñi nga xam ñoo nekk ci réew mi ban wàll lañ leen jagleel ren. parce que xam nga yi daan weesu. dinaa si ñëw waaw daan na am ay coow ci wàllu stand yeeg aju tey boo xoolee daal mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla mm-hmm. dëkk yu bari dina ñëw participer à la fidal mais au delà de la FIDAK. Mm-hmm. dañu jàpp ni dëkk yooyu aussi war nañ mën a ñëw organiser leur propre journée économique et culturelle en termes d'innovation wax naa ko ñun euh, parc d'exposition de congrès ak dëkk yi bari yi nga xam ne ni dinañu ñëw hmm. lu ñu njëkk a def mooy jàpp ni képp kuy ñëw ñu ci bari aéroport la ñuy wàcc si ils vont exprimer des besoins képp kuy participer ci FIDAK bi besoins yi ngay exprimer ñun CICES war nañu xalaat pour chaque besoin ban service lañuy ñuy proposer moo tax tey innovation bu njëkk. Hmm. mooy le CICES transport. CICES transport CICES transport. ren la ñuy gulet ñuy gis. lu gulet CICES transport gan buy ñëw. Hmm. ñun dañ lay jëli à l'aéroport pour sa déplacement yóbbu la sa hôtel te hôtel boobu aussi parce que fii waroon nañ mën a am un centre d'hébergement. te loolu bokk na si suñu feuille route mais comme amaguñu centre d'hébergement. dañu lënkaloo ak hôtel yi nga xam ne ñoo ñu wër. Hmm. mooy FETO pour ne pas faire de la publicité parce que suñu partenaire la. exactement l'hôtel VDN et cetera bu ñu leen jëlee gan yooyu ñun ñu assurer seen transport parce que du ñu leen bàyyi ñooñu rek parce que gan boo xam ne dëkkoo fi ñu war a bàyyi boo ñëwee war a dugg fi. warul doon doxandéem daal ñun ñoo koy gérer <laughs> waroon naa yëg teraanga yi ñuy wax hmm. duñ si yem loolu bu fekkee pendant son séjour il a un problème de de se déplacer ñun CICES ñoo koy gérer léegi ñun bu ñu ko jëlee aéroport ñun ñoo koy yëbbu si benn hôtel loger ko foofu waaye ñun tamit ñoo ko jël jël ko en charge par rapport à la restauration. donc CICES transport si CICES hébergement ak CICES restauration. léegi nag mooy ñetti innovation yi nga xam ne poser la question. naka la CICES di defee loolu ñun c'est très simple. Hmm. événementiel la ñu nekk institut d'appui au commerce mais nous évoluons dans l'événementiel hmm. te l'événementiel c'est un package package boobu nag moo tax nga gis fa transport nga gis fa hébergement nga gis fa restauration nga war fa gis le parking aussi le parking le parking parce que ñii di ñëw hmm. dañu war a am fu ñuy gaare dawal seen oto gaare dugg te loolu tu as vu ce qui s'est passé à ouais, Dubaï. dafa nekk manifestation internationale mondiale. Mm. mais boo fa demee la question du parking réglé nañ ko képp ko fay ñëw da ngay am fooy gaare mais Sénégal fii y a pas le parking parce que tout simplement on est frappé par li ñuy wax la réduction de notre périmètre géographique. c'est ça fon li fi amoon ci suuf dagg nañ ci bari def ko ay kër. looloo tax tey bu ñuy organiser suñuy manifestation da nga ciy bàyyi xel embouteillage dafay am embouteillage yooyu loolu moo ko waral moo tax je profite ci émission bi pour demander au chef de l'État le président de la République Macky Sall mu mettre à la disposition du CICES e le parc des expositions de Diamniadio xel mën na ko xalaat hmm. xel mën na ko nangu ndaxte euh, ñun on est frappé aujourd'hui par la vétusté de nos infrastructures te boo nekkee ci événementiel da nga war a am ay outils yu moderne te tey nou sommes la seule structure de l'État bu nekk dans l'événementiel et donc la gestion du parque des expositions c'est du domaine de l'État te ñun dañu bokk État naka ñu ko État jox ñu liggéeyal État satisfaire vraiment la demande sociale parce que loolu c'est une demande sociale loolu aussi lu koy expliquer mooy ñun ba ñuy créé en 1974 l'autorité dafa bàyyi woon xel la proximité avec l'aéroport de Dakar de Diass tey jii l'aéroport de Dakar dañ ko délocaliser yóbbu ko euh, euh, Diass Diass war nañoo mën a xalaat war nañ mën a gis ni ak proximité ak Diamniadio ñu jox ñu le parc des expositions bu boobaa ñun dañuy délocaliser une activité du CICES e maanaam la partie exposition si ces parcs d'exposition et de congrès oui. congrès bi mooy les grandes salles la partie oui. culturelle cette partie culturelle on a les infrastructures mën nañ ko réhabiliter tuuti mais l'exposition ñu dem defee ko à Diamniadio bu boobaa embouteillage dootul dootul amati et eh, ñu bëri yàgg nañ ko yàgg yan yàgg nañ ko ñaan pour ñu délocaliser parce que gis nañ décembre ni mu daan méttee pour nga jóge fii ñëw ci ci li nga xamante ne moom mooy manif bi mais mais mais en dehors loolu sànq maa la koy laaj wax nga réew yi nga xamante ne euh, ñoo war a ñëw teewee ci ak nationalité également ak pays ot bi ma ne la au niveau national ban place ngeen di jox ñi nga xamante ne ñooy suñuy opérateur économique oui ak tamit yan euh, jéego ngeen def ci wàllu standing parce que yaa gën a jur coow boo fàttali ci at yu ñu génn. je pense pour que ni waa yooyu. aussi du ñu taxawaay yooyu déjà il faut dire que ñun balaa ngaa laax jaay. xam ni koy waxee laax lekk dispositif bi nga xam ne tey am na fi pour accompagner participation PME sénégalaise yi. Hmm. am na dafa am ñaari structure parce que ñun CICES suñu mission mm. mooy d'organiser des salons et des foires yu nekk ay manifestation yu am solo waaye ñii wax ni par exemple CICES amul njëriñ euh, nangam nangam parce que ya pas assez d'activités ñu ne woy nañ ko yóbbu parce que li leen intéressé ils sont dans la manipulation pour jël suuf si mm. heureusement le président de la République Macky Sall li mu wax dafa leer kenn dootul laalati dara kenn du laal li ñu war a def mooy lan lañ mën a dooleel si lan lañ mën a yokkal CICES donc tey exposants yooyu nga wax hmm. sont des exposants traditionnels sénégalais yoo xam ne ni ASEPEX ak COSEC euh, e hmm. ak ADPME ñu ngi accompagner ces entreprises sénégalaises ces PME sénégalaises pour que ñu mën a euh, faciliter seen participation hmm. à l'événement loolu aussi c'est bon à savoir maintenant par rapport au stand li ma jàpp mooy ñun dañuy jàngat édition précédente oui li ma jàpp mooy ak samay collaborateurs désormais le jour de l'ouverture euh, de la manifestation hmm. muy FIDAK bi vraiment permettre ñu nit di ñëw di daaj ay stand maanaam un peu plus tôt la vingt cinq incha allah le ministre madame le ministre Assome Diatta dina ñëw def visite vingt cinq novembre dina def visite des stands visite des chantiers le vingt cinq lañ koy añuy arrêté loolu mu def visite bi le vingt six exposants yi mën na ñëw ñu jox leen seen clé ñu dem. kon bu ñu la déggee mooy ne fi mu ne nii lépp yemb na pour que le 26. boo leen paree fii stand boo leen paree mën ngeen dugg si stand yi ngeen def visite ngeen jël seen image donc à partir du 26 ñu jox nit ñi seen stand. le 26 ils auront le temps jusqu'au 2 wala jusqu'au 3 li ñu war a def seen stand ñu def ko wax dëgg yàlla le 6 ku fi ñëw fekk kuy daaj stand loolu dootul succès mais ñoom ñoo koy def mooy parce que sénégalais aussi ñu si bëri ngeen baal ma. partisan dernière heure lañ boo leen waxee ñëw leen le 26 dañuy bàyyi ba le cinq ñëw ne woy waaye laa jógee Ziguinchor laa jógee. et cetera yooyu yëpp on leur a les informations. pour que ñu teel a ñëw jël seen stand. def lu ñu war a def nga xam ne le jour J. le travail d'accord est-ce que dafa am yeneen ci ay innovation yoo bëggoon également revenir ci en dehors de yi nga wax sànq ci wàllu restauration hébergement ak transport est-ce que am na yeneen. yu ñu oui euh, euh, euh, innovation. benn bi mooy la presse. oui dinañu am le village de la presse. la presse vraiment dinañ leen regrouper nga xam ne ni ñoom dinañu mën a def seen plateau télé yi. def seen déplacement yi dem jëli information yi. La restauration également, on est en période Covid. Oui. les gargotes ne sont plus permis au CICES. d' accord yu ñu leen gis ci alentour yi. ak yooyu yëpp pratiquement ñun li ñuy wax la gendarmerie mooy képp ku nekk à l' intérieur du CICES ngay jaay c' est parce que ti as l' autorisation de la direction générale. à l' extérieur maintenant du CICES il y a de ces jusqu'à un certain euh, une certaine distance c' est interdit tey jii boo xoolee boo génnee jusqu'à cent mètres jusqu'à deux cent c'est la gendarmerie qui s'occupe de ça c'est interdit mais au-delà c'est pas interdit les gens peuvent vendre mais li ñuy wax mooy ñun le CICES dafa proposer benn protocole sanitaire oui. protocole sanitaire boo xam ne ni hmm. ministère de de la santé validé na ko ba envoyé seen i ndaw ñu ñëw waxtaan ak l'équipe du CICES les techniciens du CICES ba nga xam ne ni avec la ville de Dakar également dinañu dem ba CICES pendant la foire dina nekk benn point de vaccination Covid. mais également de sensibilisation. Euh, dina am yeneen activité euh, sur VIH euh, hmm. sur ophtalmo le palu et cetera en tout cas daal village santé également dina fi am. d'accord mais mais si sa maanaam foire bi fii daal kenn du ko wax te xel yi dem tamit aspect culturel parce que dañ koy bàyyi xel concert yi. le retour des grands artistes. effectivement avant ma ñëw foofu d'abord l'aspect sécuritaire aussi. parce que souvent gis nañ ñoo xam te ne yàqule nañ fii euh, ci organisation euh, FIDAG gi mm-hmm. mu amoon fi sax ay stand yu lakkoon. juróon na fi coow on ne sait pas même pas mm-hmm. en termes d' ndax mujj na am déet aspect boobu est ce que aussi ça a été pris en compte. oui dama si gën a yokk ah, parce que l' aspect sécuritaire du ma ñëw rek si sinistre yi amoon. Euh, en 2017 si je ne me pas. mais lii am solo mooy sécurité d' abord des participants. parce que aussi mënuñu ñëw nit ñi ñëw participer à la FIDAG. génn agresseurs yi di leen laal. donc on a travaillé avec la gendarmerie bi nga xam ne ni euh, avec d' autres structures lu mel Dakar Dem Dikk tey Dakar Dem Dikk ñu ñëw seen kaar yi du ñu taxaw si biti. Hmm. si biir si ses la ñu ni wutal fu ñuy gaare nga xam ne ni participants yi exposants yi bu ñu paree rek directement la ñuy dugg. Euh, si bus yi dem génn ñu dem véhicule personnel aussi ñu génn ñu dem. loolu aussi bu ñu ko defee la gendarmerie va jalonner distance bu sori. ba nga xam ne ni bu dinañu génn seen oto am nañu possibilité vraiment dem en toute sécurité. sécurité loolu aussi am na euh, mais sinistre yi nga am. li nga wax parce que l' état également c' est la continuité. ñun ba ñu ñëwee dossiers yi ñu fekk sur la table y' a le dossier des sinistrés. Hmm. mais dossier sinistrés yooyu dëkk ba si gën a frappé mooy le Burkina Faso. Burkina Faso franchement dama jot dossier bi ma dem seeti l' ma koy saluer au passage monsieur Oué Drago son excellence ñu waxtaan et ma préparé war a dem mission à Ouagadougou mais loolu jotul sotti parce que l' agenda était trop serré mais waxtaan na ak euh, la chambre de commerce du Burkina Faso waxtaan naa avec le ministre du commerce monsieur Salif muy sama turandoo également Salif euh, Ouattara je ne sais pas Ouattara mais en tout cas il s'appelle Salif mm. donc waxtaan ak ñoom ba nga xam na ni tey avec l'agence judiciaire de l'État jël nañ les dispositions mm. pour que ñu indemniser leen pour de bon parce que l'agence judiciaire mi nga xam ne ni moo yor woon dossier bi e, e, était confronté à un problème de dossier parce mm. que à chaque fois euh, ils n'ont pas de dossier li ñu mujjee def mooy ñoom ñu am euh, euh, euh, procuration def nañ seen procuration nit ki ñëw na ce dossier pratiquement et à quatre-vingt-dix-neuf pour cent vidé c'est important waxtu bu may wax ak yow nii tey le Burkina hmm. seen convoi hmm. mi ngi si yoon bi di ñëw départ nañu te avec une forte délégation yi war a ñëw. d'accord donc pour vous dire. oui loolu aussi on a essayé de les rassurer. pour leur dire voilà lu lu woon. non am na solo sax surtout ni nga def nii annonce bi nii xam naa ni ko ñi ko ci dégg seen xel dina xaw a dal mais li ñu reste très très peu de temps te bëgg naa ñu laal yenn point wax nga ni le retour de grands. des grands artistes. oui ah, mooy. xam nga tey boo génnee si mbedd bi des journalistes jekk ngeen génne buntu si sa sax da ngeen def c'est le grand rat le le grand euh, Wally. affaire bi si Fidak Bala. ni la affaire bi si Fidak Bala ça veut que le grand public revener au CICES CICES patrimoine la ouais. du sama CICES du sa CICES du CICES su kenn hmm. CICES su Sénégal la lépp lu nit yor si produit sénégalais hmm. na ñëw jaay ko produit nag du lu ñu mën a gis ni jaay ko la culture dañ ko war a jaay moo tax boo ñëwee si Fidak bi Wally dina fa ñëw. oui les euh, Kiné am tous ces artistes là waxtaan nag ak ñoom inchallah dinañ am podium. Hmm. boo xam ne ni la jeunesse va la là. te loolu boo xoolee ci innovation tey les mercredis et les samedis c'est le rendez-vous de la jeunesse au CICES. ñuy organiser ay activités pré FIDAC sélectionner ay jeunes. ba nga xam ne ni le 11 ci biir FIDAC bi boo ñëwee. di ngeen gis loolu musul gis. ah oui nous avons des talents. Sénégal am na ay jeunes talents en termes de prestation nous avons des jeunes talents yoo xam ne war nañ leen promouvoir loolu nag tax na ba nga xam ne ni ñun au delà de la FIDAK orientation bu ñu bëgg mooy. Hmm. fexe ba CICES bi nekk un centre des affaires. de la promotion culturelle mais également des loisirs loisirs yooyu nag. Hmm. pour la première fois dinañ jël 500 mètres carrés dédié ko aux enfants pendant la FIDAC. aux enfants aux enfants. pour ñu def yan. xale yi di ñëw di fort. manège pendant les euh, la FIDAC. mais le secteur privé. tey ah jii xoolal sama bureau forme triangulaire. la base ce sont les investissements. waxtaan ak secteur privé bi. mooy le mobilier local. non secteur privé bi. war nañu gis seen bopp ci FIDAC bi. parce que ñoom war nañ ma recevoir demee ñu waxtaan. Hmm. parce que boo xoolee même la composition du conseil d' administration du CICES. E hmm. y' a que le secteur privé. donc secteur privé ñoo war a ñëw dugal seen loxo ci mbir mi ba nga xam ne dinañu facilité les conditions d' achat et de vente. loolu mooy ñaari côté yi. boo boo xoolee ñun suñu logo triangle la. la base c'est les investissements. Hmm. ñaari côté yi jënd ki jaay. saa yoo duggee biir CICES. E nit ñi dugguñu di génn ki jaay di jënd. ça veut dire que ça ne bouge pas. tax tey. ñun ñu jàpp ni dañu war a diversifier nos activités am ay activités yu bees ay partenaires yu bees ay activités yu bees booster le taux d'occupation et de fréquentation kon bu ñu la déggee daal mooy avec Keita CICES New Look la quoi. New maanaam boo xamante ni en dehors de li fi amoon yëpp. 2019 ak mbas beeg yi jafe-jafe ak yooyu waaw l'administration c'est comme ça. yow da ngay liggéey ba niveau bi nga bàyyi keneen bu ñëwee jëlee ko foofu avancé. waaye lépp lu ñuy def tey. Hmm. orientation son excellence le président de la république moom laa dem seeti ne ko yaa ma jox lii def naa l'état des lieux lii laa fa gis fii laa bëgg a jëmee kër bi mun ne ma di yokk si lii yokk si lii ak madame le ministre Assom Diatta tey elle nous a mis à l'aise madame le ministre Assom Diatta kenn du moom hmm. nous sommes l'événementiel lu tax ba ne kenn du moom nous sommes l'événementiel événementiel la ñu nekk mais elle a donné des instructions à tout, toutes les structures de son département désormais kenn du organiser activité ailleurs si ses rek ku organiser feneen moom du dem présider ko te loolu lu tax on vient après xam nga Covid lañ jógee on est frappé vraiment on a un défi financier il faut que mu ñëw dugal si loxoom jàppale ñu ba nga xam ne les activités du département fii lañ koy tenir. c'est important et je lance un appel. Ah. aux autres départements du Sénégal. Oui. Euh, ministériel. Hmm. pour leur dire ñun vitrine la ñu. vitrine la ñu ñoom lu ñuy réaliser le président Macky Sall dans le cadre plan Sénégal émergent. à a fait beaucoup de réalisations. mais il n'y a pas assez de communication. Surtout. mais ñun en tant que parc d'exposition vitrine. Oui. on demande à tout à ces départements ministériels. nañu ñëw CICES. di organiser leur propre salon. def ko seen si CICES su bopp. mais boo jëlee tey le salon. de la jeunesse. mais lépp lu ñuy def pour les jeunes. la DER. Hmm. ñaata start up la ñu accompagner. mais ces start up là mën nañu organiser le salon de l' emploi. wala ni état bi def na ko lii pour les jeunes. voilà les réalisations des jeunes qui ont réussi. surtout que ni léegi ñu wax xëy ndaw ñi. ndaw ñi. j'ai de vous il y beaucoup de choses qui ont été faites tey jii on peut organiser le salon de la pêche le salon de l'arachide mm. mais nag yooyu dañuy génn on délocalise dem à Kaolack organiser le salon de la l'arachide le bassin à étudier dañuy dem Saint-Louis le salon de la riziculture le salon du riz à Saint-Louis dëkk bu nekk am na ay potentialité économique nañu dem organiser des foires nañu dem organiser des salons mais loolu nag dafay fekk l'État nous accompagne bu ñu état bi accompagner jox ñu moyen wóoluñu hmm. c'est juste une volonté il faut se donner les moyens de réaliser. en tout cas ñu ngi ñaan yàlla loolu fekk ñu fi ba ñu xool en tout cas envie bi ak volonté bi ngay affiché hmm. surtout vision bi ngay décliner nii en dehors même ci FIDAK bi ñu mën a ñëwaat defaat évaluation xool perspective yi également mais laata ñoo jeexal xam naa ni ku mel ni yow moom du ñu ànd yow te du ñu wax tuuti politique. Mm-hmm. parce que faaw ñu jeexal ak actualité déjà démb gis nañu waaye Yewwi ak seen meeting d'investiture. Mm-hmm. seeni i yi nga xam ne ñoo jongante ci 19 communes yi. Mm-hmm. ñu dégg le discours de Ousmane Sonko mi wax ni ku leen xose xose leen ko. maanaam du signer benn yoon charte boobu noonu jëm ci. la waaw xam nga wax dëgg yàlla en tant que politique am jaar politique jaar ci école. ñu encadré ñu politiquement ba ñu yegg tey fu ñu yegg ni tey Ousmane Sonko li mu wax man duma ko mas a wax parce que bu fekkee leader nga da nga war am retenue retenue pour la stabilité de ce pays surtout bu fekkee da nga nekk nit boo xam ne ni tu dis que tu aspires à diriger le Sénégal Sénégal dafa am d'abord les stabilité les fondamentaux de l'émergence fondamentaux de l'émergence la stabilité la paix sociale si la bokk kon j'ai toujours di que Ousmane Sonko est à l'étape biberon politiquement te li mu wane ni tey wane na ko li mu wax ni wane na ko parce que même fu fekkee ni jàpp nga ni c'est seulement par la violence qu'il faut faire face au président Macky Sall mais nanga jàpp ni les électeurs li leen ñor mooy jàmm réew mi mais tu dois même nuancer ñi koy encadrer seen leçon seen seen enseignement des na. Ah moom si boppam li muy tari mooy liñ koy jàngal gis nga gune bu la ay gune rek wëree dangay ngay jàpp ni il faut être du ay gune rek ko wër. ku mel ne Khalifa du gune. non mais xam nga loolu xam nga lu tax ma Khalifa Sall wëru ko de Khalifa Sall est là-bas pour ses propres ah moo tax nax na ko ba nitam nekk la candidat de dakaar et puis Ousmane Sonko aussi. buy wax ni tous les anciens politiques là dañ leen war a abattre et que moom dafay indi lu bees mais lan lu bees la fi indi on ne fera jamais du neuf avec du vieux ñi ko wër c'est des vieux également politiquement dans le cadre de la coalition lan la waxati wala bu ñu kenn sonal si waxu coalition. mais yéen aussi tamit dañ leen di ŋàññi parce que souvent da di provoquer wax na ko ci ay kàddoom provocation yi nga xamante ne ñenn ci yéen ñu ngi ci jëm ci moom. ci wàllu politique. souvent politique dafa ànd ak galgal ah oui dafa ànd ak galgal il faut nga am maturité politique looloo tax ma ne leen man ñun suñu mbër du seen morom le président de la république Macky Sall ça c'est des élections locales mais ñoom il ne voit pas les candidats au niveau des communes mais l'image de Macky Sall Macky Sall parce que Macky moo ne nan ñëpp noppi déglu mais comme déglu la ah ci investiture yi waaw moom moo demande à ce que nit ñëpp bàyyi kii ko le fait que moom mu taxawee taxawaay boobu du est-ce que. mooy juste le fait que ñeneen ñi tamit le président Macky Sall c'est le normal dafay am coow tuuti parce que l'engagement politique et d'abord locale kon ñii engagé wu au niveau de faire de la politique depuis leur base politique mais ku nekk di nga bëgg a jiite. waaye ñun ay jullit lañu kenn mooy jiite. kenn moo jiite. et je prends l'exemple du plateau. Fala bëggoon daanale ak <laughs> yow dama waxal la ko dama <laughs> waxal la ko bismillah man j'avais déclaré ma candidature. oui. bokkuma parti socialiste. alliance pour la république APR yaakaar laa bokk. coalition c'est une question de circonstance et d'intérêt. dëkk biir plateau li ma gis par rapport ak fonctionnement Dakar plateau mais c'est la commune du parti socialiste ma jàpp ni tey. war nañ mën a ànd nekk benn mu nekk la commune de Benno au service des population de Dakar Plateau. noo tuddee c'est la commune du parti socialiste. parce que ku bokkul parti social ku nekkul militant du la jox dara te loolu mooy dëgg. ah oui ah oui oui tu sais moi je dis la vérité tey vérité boobu tamit moo tax ma ne ñii taxaw di langue politique bi pour jël la mairie du plateau dañuy sonal seen bopp le le candidat Alioune Ndoye va kon jarul ñuy rey rey. jarul ñuy sonal seen bopp. le candidat Alioune Ndoye va gagner mais euh, euh également que su ma waxoon que je suis candidat c'est parce que tout simplement dama jàpp ni li ñu teg sur la table ku yaakaar ni am nga capacité pour jël ko pour dérouler ko na nga wax parce que tey Saliou Keita am na un parcours académique un parcours politique administratif. loo xam ne tey mën na ma pousser ma wax ni je suis candidat. lu tax nga renoncé lu tax nga renoncé. je me renonçais parce que tout simplement sur euh, demande du chef de l'État bi nga xam ne waxtaan na ak moom dama concentrer au CICES e. parce que c'est au mois de décembre que les choses vont se passer au CICES e. et le CICES e, ce n'est pas ma personne c'est l'image du Sénégal le président m'a convaincu et je ne suis même pas sur les listes pour vous dire pour lu tax nekkuma sur liste bi. Il y a des camarades qui sont avec nous depuis très longtemps. Vous voyez, des jeunes qui ont envie de prouver. Ces jeunes-là, nous leur donnons l'occasion de nous sur l'istibi. Nous nous encadrons. Donc, le poste importe peu. Être maire, être euh, euh, conseiller municipal, ça ne veut rien dire. Ouais. Ce qui est important, c'est l'amour que tu as pour ton quartier, l'amour que tu as pour ton Sénégal. Et je pense que tey nous occupons quand même des sta euh, euh, des responsabilités nationales on travaille pour le pour accompagner le président Macky Sall on travaille pour la satisfaction préoccupation sénégalais yi ñu fexe ba apporter des solutions. en ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax. c'est à moi de te remercier encore une fois merci beaucoup pour le déplacement. ñu ngi lay gërëm di la sant Salihou euh, Keita moom nag xam nga ñun Cissé Cissé ñooy seen buur. Euh, fii ci Afrique te loolu. du ko weddi moo tax léegoo léeg <laughs> merci beaucoup <laughs> ñu koy gërëm di ko sant moom mooy directeur général euh, bu sises e ñu ngi leen di koy fàttali li waral ndaje bi euh, wala boog jotaay bi di ndaje bi ñuy waajal fii di FIDAK le 6 jàpp le 20. kon nag bu leen ko uute wax na fi ay innovation yoo xamante ni mu ngi xaar képp koo xamante ni da war a ñëw exposé nationalité yi fi war a teew waaye it réew yi nga xamante ni naka noonu. ba ñi nga xam te ñoo nekk ci réew mi it am na ay pàcc yu am solo yu ñu leen fi euh, bàyyil yoo xam te ne ku ci ñëw di nga ko gisal seen bopp waaye partie bi gën a intéressé ñu mel ñoom élage maanaam parti culturelle beeg concert yeeg ci aju loolu aussi ñu koy fàttali xam ni retour lay doon ci artistes yu mag yi nekk ci réew mi yooyu yëpp di ay innovation yoo xam te ni ren incha allah dina am ci fois bi ñu nit duñ ci des ginnaaw ndax wax na ko mu doon lu ñu neex ñun presse bi souvent dañuy desal ginnaaw te fii lu fi baax ñu na lu fi jëm kaw ñu na loolu moom xam naa sàmba Ardo du ko weddi comme nag amal nañu benn poxus bu am solo pour ñun nga xam te dañ fa mën a nekk def suñu plateau ah waxtaane euh, li nga xam te moo war a am ci FIDAK bi def suñu journal ak yeneen ya ci aju loolu moom lu ñuy neex la te incha allah dinañ ñëw ci euh, jàmm teewe ko def li nga xam te mooy suñu liggéey ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñu doon bàyyi xel ganu Equivox ñu doon dalal kilifa gi euh, Keita Salihu joxante di daja beneen yoon beneen gan euh, ci beneen numéro ci seen émission euh, ganu Equivox